li nga xam ne moo waral ñu ñëw te ngeen euh, mu muy firndeel taxawaay bi nga xam ne Demba Gallé yi am nañ mooy suñu teewaay fii tey ndax dafa am programme bu am solo boo xam ne Feed the Future muy programme boo xam ne yaakaar naa yéen ma ko gën a xam ñu koy wax Kawolor dafa nekk di ko def loolu muy def nag ñun waa ministère bi dañu jàpp ne daf ñuy gunge ci suñu liggéey ndax programme bi muy def di dajale ay jigéen ñu nekk kuréel ñu tuddee leen Dembo ñu am ay jumtuwaay yu ñu leen jox ñu mën ci liggéey lii génn ci liggéey bi ñu jox beneen groupement loolu mooy économie sociale et solidaire moo tax programme boobu ñu tàmbalee ko jàppale bi ñuy organiser salon tournant économie sociale et solidaire bi ñu gisee loolu également ci mbas mi liggéey bi xaw taxawu taxaw ci Demba Gallé ci la ñu ñëw appui léegi nag ñu ne ñu am na programme bu am sol bu ñu war a mooy placement actif d'animaux yi loo xam ne dafa jóge ci yéen ndax li tax programme bi am ba ñu mën leen tànn da ngeen doon yaxanal di liggéey di denc di def seen kees seen kees dem ba am lu takku ngeen ne lu ñuy def ngeen am nag ñu leen gunge ki njëkk ci gunge bi yaakaar naa mooy seen maire ndax bi ngeen taxawalee loolu dafa yëkkati koom bu jógee ci commune bi mu def mu am ñeneen ñu leen gunge muy ay partenaires tudd nañ fi NMA Sandeuse tudd na tudd nañ fi Ozara ñooñu aussi nekk ci secteur privé bi nekk ci gox bi di yëngatu jël ci li ñu am dugal ci loolu mooy RSE loolu lépp nag boo ko gisee dañ ko président Macky Sall daf ko tënk ci secteur bu ñuy wax économie sociale et solidaire te lii ñu fi def tey loolu mooy économie sociale et solidaire maanaam nit ñi ca lañu ñu ne di ci yëngatu ñoom ak ña nga xam ne ay entrepreneur lañ ci seen mi gox ñu leen di dimbale président Macky dafa ne na loxo état di yegg kon tey sànq bi sëñ bi di ñaan dafa ubbee lu am sol sëñ bi bi ñaan dafa ne ñu ngi tàmbalee fii ci Taïba Niassène waaye mi ngi ñaan mu génn modèle bi yéen ngeen am ci ndam mu génn law ba génn waxul sax Nioro mais mu génn Kaolack dem ci yeneen région ma jàpp ne sëñ bi ñaan bi dafa nangu te loolu bu amee du ñu bett ndax nag fii ñu ne dëkk bu tedd la te ku su suñu borom may nga ñëw fii loo fi yéenee jàpp naa ne tawféex mën na cee am moo tax ministère bi dina accompagner yeneen debbo ngàlle yi nga xam ne jotuñu leen tànn debbo ngàlle yi ci commune bi yépp dinañu toog ak programme bi foofu nag ma ci ñaax NMA ak Zara pour que yeneen groupement yi des parce que nee nañu 48 Demba Ngale moo fi am 10 la ñu sélectionné kon des na 38 ñun ministère bi dinañ teg mise au départ pour fanweer ak juróom-ñett yooyu ñu am li yeneen Demba Ngale am. léegi nag li siy des mooy balaa Zara di dem ak NMA 102 di dem. ñoom tamit ñu jël engagement mën a accompagner fanweer ak juróom-ñett yooyu ndax nag RSE bi président Macky Sall daf ci bëgg lu am solo nee na nañu xool nu RSE bi di gën a ak kuréel yi ak population yi li ñuy soxla ndax bëri na loo xam ne nit ki dina am yéene def xëy na du méngoo kan kay defal la mu soxla waaye tey fii boo xoolee ñoom seen partenaires yi liñ leen defal lu am solo ndax bu Kawloor ñëwee ne nañ leen wutal gétt ñoom NMA ñu ñëw indi euh, aliment Zara ñëw indi dolli ci kees gi mais bi ñu boolee suñuy doole moo tax ñu mën a def moo tax mu mën a yaatu loolu nag la loi bi xaatim nu muy gën a yaatoo nu muy gën a yeggee ci bi te loolu pour ñu def ko dañuy daal di ànd di xàccandoo di ndóodóorndóor loolu mooy économie sociale et solidaire looloo tax ma ñëw fii tey ndax nit ku nekk ci dara di ci kër kër di ci yëngatu gëm ko bu dara doonulee dara boo amee autorité yoo xam ne dañ leen di jàppale ñëw fa day yomb kon monsieur le maire maa ngi lay féliciter di la encourager ci action yi nga xam ne yaa ngi koy def ndax bi ma recevoir waa programme bi directeur wu programme bi Kawloor moom ak équipe bi mu àndaloon lañ ma njëkk wax mooy vraiment maire bi xaaruñu ci dara dugal na loxoom bu baax a baax a baax ci programme bi kon lu mel noonu bu amee nga ànd ko ak sa conseil municipal ndax yaakaar naa ñoom ñoo wax fii ne yéen ñëpp benn ngeen yéen a ngi xàccandoor di dóorandoor kon bu ngeen àndee ci loolu yéen ñëpp day daal di jaadu ñu ñëw fi encourager leen féliciter leen kon suñu service yi dinañ xool ak waa programme bi parce que phase pilote la ñu wax fukk yi ñuy tàmbalee dañuy xool ndax programme bi dina dem walla du dem kon na fukk yi ñu njëkk tànn xam ne li gàll seen ndodd mooy ñu def mu baax ñu def mu jub ba nga xam ne fii ak weer wala lu ci topp dinañ mën a finaliser ba yeneen groupe Demba Galle yépp am ba programme bi mën a bee génn biir Kaolack kon nag maa leen di sant di leen gërëm man ak sama équipe yépp ci kóolute bi ngeen ñu defal ak ci invitation bi ngeen ñu invité pour ñu ñëw fii àndandoor ak yéen et je déclare lancé le programme de placement d'actifs animaux de la commune de Taïba Niassène Kawloor bi mu dugg see ci commune bu Taïba Niassène monsieur le maire Mouhamadou Abib Niass moo ko euh, bind demande de partenariat mu accepté ko bi mu ko accepté Kawloor ñëw toog wax ak moom Kawlax li nga xam ne mooy ay mission mooy xeex ndool ak xiibon te kuy xeex ndóol ak xiibon foog nga euh, def agriculture pour la nutrition mbay mu sell bu loolu passé pour ñu pour ñu taxawal ay groupe pour ñu créer ay groupe de Bogale ci commune bu Taïba Niassène groupe de Bogale yooyu avec Kawlax ñu defal leen ay renforcement de capacité ci maraîchage transformation céréales transformation fruits fruits et légumes transformation farine enrichie bépp xeet boo xam ne ñu ngi koy bay fii ci commune bi Taïba Niassène di ko transformer muy xeex nutrition euh, Kawloor defal nañu formation formation yi formation farine en légère léger defal ñu formation pierre en léger defal ñu formation aliment volaille defal ñu formation yi bépp xeeti formation daal Kawloor defal nañu ko ci renforcement de capacité yi bu loolu jàllee mu jàllal bu ko ñoo tabaxal ñu taxawal ñu ay keesi épi ci siñ groupe des Bogalle yi ndax bu njëkk doon nañ def épi waaye ñun épi buñ ko defaan ba pare dañ ko daan gaspiller rek di ko demee xew di ci def eh, ay ndayale di ci def eh, di ko gaspiller daal ci kaw loolu mu ñëw nañu dañuy def l'investi euh, l'épargne pour l'investissement xam lan mooy investissement bi projet Kaolack euh, jékkee ba nga xam ne nii mi ngi jàll ci yeneen commune di dem ci yeneen commune ndax trois communes la doon defar phase bi muy jàll ci yeneen commune mu andi ñi projet élevage projet élevage boobu nag bi mu ñëwee ñu def ko ci groupe Debbo Galle yi commune bi tey ba ñu leen mu ngi porté 48 groupe Debbo Galle waaye 10 yi ci lañ demat ci phase test bi ci placement des animaux euh, bi kaw loolu ba ànd ak 10 euh, groupe Debbo Galle yooyu ci phase test bi bi Kaolack ñëwee ba ànd ak 10 groupes de bagala yooyu ci cas ci phase bi ñu laaj ñu suñ contribution contribution yooyu ñi nga xam na nii moom lañu def ba ubbi compte dugal ko ci Kawlor ñëw def ci euh, wàllam amuñ ci benn jafe ndax fekk nañu ñu taxawal ay épi di di di di di am suñu di mobiliser ay fonds ba xam ne ci lañ jël dem def ci ubbi compte placer fa yi ci jàppale euh, monsieur le maire. mi nga xam ne moo ñu boole mutuelle Teranga à travers le FONGIP ñu dolli ci suñu fond ba nga xam ne million cinq 500 le groupe des Bogalé it taxawal Kawlor ñëw def ci 6 million ba léegi Kawlor boobu ñu dafa àndaat ak projet bi ci njiital ci njiital docteur élevage muy Balel Ba moom it ñu ngi ko ameel remerciement bu am doole ndax depuis la euh, depuis départ bu ba léegi day ñëw di ñu accompagner. diirab 4 mois ci gannaaw chaque mois dinañ ñëw taxaw def benn diagnostic ba tey jii nii ñu nekk ci placement des animaux yi ndax euh, mi ngi ànd ak ñun ci comité d'achat bi nga xam ne nii moom lañ taxawaloon ñu ànd ceeg euh, ñu ànd ceeg GRL communautaire bi ci njiital baabu Diop Thiam ñoo àndoon di jënd euh, animaux yi ci bés ni ki tey bi ñu ngi am 200 animaux de plus yoo xam ne nii ñu ko war a remercier groupe Debbo yi nga xam ne ñoo nekk en face tes te groupe Debbo Galle yooyu ñi nga xam ne ñoo nekk en face tes bu ñu leen dexee remise des animaux yi dañoo fas yéene mu laal 48 groupe Debbo Galle yi nga xam ne ñi ngi ci pegg bi te bokkuñ ci phase test bi te loolu li koy def mooy képp koo xam ne nii jox nañ la ñaari animaux da nga fas yéene bu juree nga jël ñaar yim jur jox sa morom mu jox moromam ba mu daj groupe Demba Gaal yi ba laaj ñi nga xam ne nekkuñ ci groupe Demba Gaal yi ba laal 15 communes yi nekk ci département bi laal département bi yëpp nga xam ne nutrition dana fi jógee carrément bu loolu jàllee ñi ngi remercier waa NMA jàpp nañ ci bés bi ndax aliment bi nga xam ne nii moom la ñuy jox suñu xar yi andil nañ ci ci ab tonnage jàpp nañ ci journée euh, journée bi teranga Ozora commune bu Taïba seen moom plusieurs fois dañ koy wax di ko wax à travers monsieur le maire ndax lépp moom la mooy uti mooy indi moo ñu andil partenariat bi mooy lépp daal moom la ci A ba Z.